jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontaante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne tey ñu dalal kenn koo xamante ni Bayer la ci làmb tournoi bi ñu jàppoon nii ñu ci bari ci làmb tournoi boobu mënul mënul ne bokk na ci ñu ko tëgg ba tey bi ñuy joxe meilleur combat l'espoir wala meilleur espoir ci làmb ji ñaari xale yi nga xamante ni tëgg na leen ci lañ bokk ku mel ni caatu Daouda Fall ak Kaaw Gourdin te ñoom ñaar ñëpp ñi ngi production bi moo leen tëgg ku ci nekk bëre ñaari komba génn dem final final boobu nag ñu ci bari ñu ngi njort ñii nee nañ <laughs> munta ne ñii nee nañ mën na ne ñii nee nañ euh, tournoi bi est-ce que ñi nga yor na xaalis bu mu ko tëggee yu mel noonu yëpp dinañ ci waxtaan. parce que bu ñu juumul gisoon nañ ci claf bi nga xamante ni suñu papa Gaston Mbengue moo ko tëggoon euh, final bi doxoon ci diggante Lac de Guiers ak euh, Zos. kalaaf boobu bi ñu demee ba finaal final ba Gaston Mbengue mujjeewu koo tëgg daa delluwaat ci beneen loxo boo xamante ni mooy loxo sëñ Fallou Luc Nicolaï moo mujjee woon tëgg finaal boobu ci stade Jom Iba ba ki nga xamante ni mooy Lac de Guiers 2 ginnaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëweel waxtaan bi euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. Baye Jili maa ngi lay nuyu di nuyu waa Wasaare di wax ne ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi sama ñaari waajur. Mm-hmm. di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke mu yàgg fi te wér di ko ñaanal Baye Jili Mbacke borom léegi-léegi di ko ñaanal Cheikh Ndigal Sène di ñaan sama ñaari waajur suñu borom bàyyi leen fi ba naal yi ñu bëgg àggale yëpp ñu àggale mm-hmm. tey dañuy ñëw ci ci ci direct ci tournoi bi gannaaw bi nga koy taxawal nan la demee woon ak ci biir tournoi bi bi nga présenté affiche bi wax xale yi war a dajaleeg yëpp euh, nan la la dikkee. waa loolu damay sant staff ñi ngi production bi rek ku mel ni El Hadj Serigne Faye bu benn barak ak Modou Anta sans frontière ñoom Omar Saliou. Mm. Grand Paul Maurice ak ñoom Kaana ñoom ñoo ma ci doon jàppale. Mm. bi yàlla dogalee ñu waxtaan ci. man itam yaakaar naa yàgg naa ci waxtaan boobu mbas mi sax. Mm. kii yeeguloon boobu amagutoon. Euh, yàlla dogal nag euh, ñu bari bëggoon nañ combat yi séparé ko comme ni ñu koy bëggee nii ni ñu koy mébétee. Mm-hmm. yàlla mi dara tawut ma nekk ci di ci bay sama waar ba suñ borom teg ko ci sama loxo. waaye teg ko ci sama loxo tam. damay jàppe ne du dara ndimbalal suñu borom la daal moo taxoon ñu ne ci ba suñu borom dogal ñu jot ci. di ci liggéey nag ba fii ñu toll nii quoi. bi nga présenté affiche bi ñu bari ne woon nañ làmb ji du am. ma jékki-jékki dem arène nationale. gis première journée bi macha allah mu nekk tuq sa bënn saañ ba ñu gis fa cosaan gis fa làmb bu neex xale yi wane seen bopp te ñoom ñëpp ay espoir lañ. bi nga dugg see arène nationale làmb ji nga xamante ni yow xam naa ni daan nga dégg ñu naan làmb ji mënul am. Mm-hmm. du ko tëgg ak yu mel noonu wàllu koom-koom doo doole ji bariwul ak yu mel mm-hmm. noonu làmb boobu saa su ne dégg bi nga duggee arène nationale xale yi bëre ba pare nga dem ñibbi sa kër lan ngay yëg. waaw sant yàlla rek man sant yàlla mooy man euh, jaam yàlla laa. Mm-hmm. ba pare nekk taalib suñu Tuubaa bu mag nag boo xam ne dama ko gëm. ndax suñu borom buy maye xamul samedi ak dimanche suñu borom daf ñu bind bu yàgg bàyyi bi noog boppam nag. ndax da ngay doomu aadama bu xaman fa mi amee day xëy rek dem foofu toog waaye ñun suñu gëm-gëm ak suñu fit ak suñu jom fu ñuy dem dañ koy yóbbaale hmm. bi yàlla dogalee tournoi bi ñu taxawal ko dégg nañ ci nag lu nekk ndax bu ñu koy présenté jour bu ñu koy présenté bi ñuy dawalee 3 jours 4 mbër yi nga xamee ne jot nañ avance sax ñoom ba léegi gëm nañ ne neneen làmb ju du am hmm. ndax ne nañ am na ñoo xam ne taxaw nañ woo leen téléphone ne leen promoteur bi yorul xaalis du ko tëgg dañuy wax noonu rek mais nag euh, ndimbalal yàlla du ànd ak ab coono hmm. man xaaruma kenn ku may dimbali te itam képp ku xalaat ne yow yaa ma mën nga koo téye man suñ borom rek laa yaakaar ak sëñ Tuubaa mi nga xamee ne dara du jeexalul dara moo tax euh, bu ma nekkee ci dara damay gëm ne lu ma nekk rek bu am dem ndoor mais dama koy àggale mm-hmm. man noonu laay fonctionné mm-hmm. ma ci nag di ci bay waar ba suñ borom dogal ñu ubbi làmb ji nu jënd licence nekk ci première journée bi ci liggéey di ci liggéey ba bis bu ëgsi bis bu mu ëgsee borom mi nga xamee ne moo yor lépp lu fay comme nit commencé mu àgg rek ci moom la neex mm-hmm. na ci lu lu kawe suñ jortu ndax bañ koy def itam am nañu ñëwoon ñoo xam ne ñëwuñu woon pour seetaan si dañoo ñëwoon di xool ndax dina réussir Mm-hmm. waaye suñ borom moom euh, la muy la muy joxe du tàggu doomu aadama mm-hmm. day defar lépp ba mu jekk mu jox ko ka nga xamee ne moom la ko war a jox mm-hmm. mais sant nañ ci bu baax bis ba nga xamee ne maame ka ban ko commencé ba na mu jeexee yëpp mbégte la euh, kontaan nga ci mbégte la wax nga ko ci say biir wax sànq ñu demaat ci deuxième journée bi nga tëgg ko mercredi mercredi jour boobu ñu ci bari dañu liggéey ñu jékki-jékki gis ni dafa mel ni idaali ñu ngi dafa dafa perte ci bis boobu. Mm-hmm. ba waral temps yi muy génn. Mm-hmm. di def ay sort di wax ci nuñ ko dul xamee. Mm-hmm. da nga perte ci journée boobu. waaw euh, perte mu amu ci perte perte ma ci ndax xam nga lu tax perte ma ci. Mm. li ma ci nii tey moo a dàqal millions yi du jeex ndax doon tuut tànk maa mujj ñëw ci làmb ji suma juumulee maag sama frère ma koy nuyu Jamaïcain. Mm. ñun ñoo gën a nekk promoteur yu ndaw ci espoir mm. tey bu ñu demee ba yàlla suñu borom dogal nu am loon engagé ne ci ci ñu du dem. ñu ne ci tey ba nekk ci cappaandaw ga ñu ko xëccoo naan bii promoteur a ngi koy bëgg ak bii promoteur a ngi koy dox ñun daal li wér te mooy ñaari mbër yooyu nga xamee ne ñi ngi xalaat ne promoteur yaa ngi amee xëccoo hmm. ameluñu leen dara ameluñu dara tam kon loolu ndimbal la hmm. te seeni ménagère ñi ngi ñuy dégg bu leen neexee ñu wax na leen ne génn ci presse bi wax ne promoteur amel na mbër mi dara wala amelu ko dara hmm. sant nañ ci yàlla loolu mooy suñ gañaa ñun tey bi may ñëw ñëpp ñëwoon du ñëw tey suñ borom dimbali ma maa génne ñaari gone bu bu yemee fii tam maa génne ñaari xale te ci kàtt nag suñ borom laa wax di leen ko àggale ndax lu nu gëm la te itam li ñuy xalaat ne maame ko du àgg nañ xam ne dinañ buuxanteeg ñoom daal ndax ñun jaame yàlla leen te suñu borom noppi na bu yàgg ci ñun. mais am na ci beneen final bu fi amoon ci tournoi ñoom Kalaafa ñoom Zos boobu. gis nga final bi promoteur bi ko bi tëggoon tournoi bi. Hmm. tëggul final bi est que loolu du la dal. waaw ñun daal en tout cas dinañ ci wax. dinañ ci wax dinañ ci dox ndax ñun moom mënul dara la ñuy bañ wala du ko àggale. Hmm. te loolu moom képp koo xalaat booy waxoon ne xaar nañ ci ginnaaw. ndax man sama fit ak sama jom moom romb na lépp loo xam ne lu ma xalaat nit tey laa la wax bu ñu doon wax ne maam gaynde dañ koo teg ku dem laal ko am ci milliards yi man jàpp naa dinaa ci am ndax man loolu laa gëm barke xam la xam ma xam nañ ne bu ñu newoon tey jii ku fanaan ci armée bu bët seetee am xaalis dinañ ma gëm naa ko te man lu nit di am lu baax war naa ko mën am ndax taalibe Sëriñ Tuubaa laa mhm. te ragaluma fi ma jëm te itam ñi may ñaanal gëm naa ne maam ñi ngi may ñaanal muy sëñ Abdou Karim Mbacke Baye Jili Mbacke borom léegi ak Cheikh Ndigal Sène mm-hmm. waruma ragal daal mm-hmm. man moom doomu gaynde laa mm-hmm. léegi ñu ñëw ci façon waxin bi nga xamante ne Idaly mu ngi koy wax di ko wax ci moroomu promoteur mi euh, mu mel ni kuréel gi da ngeen ànd bokk benn kuréel mais dafa mel ni dafa am jiital nit ba pare di ko faxastal loolu lan nga ma ci mën a wax non loolu amu ci dañuy xam nga làmb ñoom li may wax rek ne kenn ku ci nekk maam ko euh, en boo gis ci làmb Euh, bopp moo ko fa bàyyi. dëgg la waaw muy làmb ñëpp nag koo gis ne mu ne moo nekk en tête. Hmm. boppam rek moo ko fa bàyyi. ndax làmb ji xeex euh, xeexal ñi nga xamee ne ñoo nekk sa ginnaaw man gisatuma ko xeex pour man la laa gis daal moom laa gis ñu baree baree bare ci làmb ji moom la ñuy def te man nag dama doon koo xam ne man kenn yoru sama njëlaan ah. te kenn daggaluma licence kenn joxaluma mbër avance su ma gisee lu ma neexut ci làmb laa bokk war naa ko mën a dénoncer ba comme ku ko ko jàppee ak noo ko mën de jàppee man ni ma ko yëgalee laa koy li ma wax ne kenn yorut sama kër diir bi ma yoree sama njaboot rek léegi kenn mosumaa jox junni ne ma jox leen kon jaam bi yàlla laa boo xam ne moom li ma gëm ak di ko wax te muy dëgg rek laay wax hmm. waaw du ma wax nag loo xam ne dama koy wax ngir diw dama koy raayal xuur ginnaaw wala def benn promoteur bu ma seqal benn relation bu tax may raay sa xuur ndax yoroo sama kër kon bu ma gisee loo xam ne jafe-jafe làmb la wala nit di ko dox ngir intérêt dama ko war a wax jafe-jafe la mooy lan parce que li nga attaqué promoteur yi mooy da ngay gis promoteur boo xamante ni Idaaly dafay organiser journée. Mm-hmm. muy ñaan yàlla daal Idaaly échec ci journée boobu. waaw loolu loolu loolu loolu euh, xam nga euh, làmb xare la. Mm-hmm. te ñaare léeg-léeg booy dem ci xare dina bëgg ñu fa bëgg ndam am ñoo xam duñ la ndam loolu day am ci kuréelu promoteur gi. promoteur yi boo gisee tey li ma wax sànq ne leen ne am na benn interview bu ma defoon ma ne leen dafa loo xam ne day ci kanam mais du feeñ ci jikko yi. Mm-hmm. bokkut doomu aadama dafa lëndëm te dafa naqaree xam. waaye nag ñun daal li wér te mooy li ñu war a nekk moom duñ ci wàcc centimètre ndax kenn ku ne bi ngay ñëw fi nga nekkoon nekkoo fa am na feneen foo doore mm-hmm. kenn ku ci ne fii ñu doore nii di yëg biis wala ñuy dox ci mbedd mi foofa nga jaare woon. Mm-hmm. te ñun ñi ngi ñaan suñu borom ñu bañ a nekk koo xam ne maanaam que ñu nekkee promoteur boo xam ne tey yor 4x4 di dem. Mm-hmm. ruuse oto am suñu suñu weer oto ñu rus koo wàcce. wala ñu wut fu nuy jaar mbedd mënu jaar man dugg car ak dugg super. ak dox sama tànk rek laa yemale. waaw ndax nag li ma gëm daal laay wax. Mm. waxuma nag pour damay wax kii wala nangam man yi daal di ñing dugg ci oto yi dugub super ak dugub kaar ak dox ci sama tànk bii rek laa yemale. Mm. ndax damaa jàppe ne àddina moom lu fi waaye di yor ak lu mu bare bare am na foo doore woon am na foo toll te yaa ngi xalaat ne feneen war nga faa dem. Mm. te nit ki amoon na bëreet boo xam ne maa mi jóg am teraanga jékki-jékki ci cëppaandaw ko yorutul dara. nit di dox ba jàgg ñu naa tekki dara mu xëy yor famille bu bari loolu boo koy xool misaal day am ci li tax euh, sëñ Samba doon wax ne njaboot teraanga mooy njaboot. ndax njaboot nit bàyyi dund na ba dee amul dara. Hmm. doom juddu am 3 mois rek yor waa kër gi yëpp. ñaata doom nga fi dégg ñu naan doonoo juddu xaw ma ban année. Hmm. ñu génn ñu naan jox na leen 30 millions 40 millions te amaguñu weer. du jeex bàyyi juddu 70 ans mënta am loolu. kon ñun li ñu gëm loolu noonu ni ñu ko gëmee. noonu lañ gëmee ne lépp lu nit ku baax dem rek war nañ ko mën am ndax wàccu nu yoon am. Hmm. waaw yàlla nag dafa bind doomu aadama nga am fooy commencé am foo toll am ñii ngay gis fi tey ji koo fi lim mu yor kaat kaat di war am na loo xam ne bu ko waxee yow da ngay sa bopp ndax coonoy àddina moom da jaar coono àddina ba pare teraanga doog a ñëw waaw euh, ñu ñëw ci tournoi bi nga xamante ni ñing final bi moo des est que ñaari mbër yi ku ci nekk li nga war a waxtaan ak ñoom wala li nga warloo ñoom jox leen avance pour ñu préparer seen combat yaa ngi ci. man li may wax euh, tey laa ko gën a ma comme li ma yotee nii si dama ci kontaan. Mm-hmm. lamb ji yow mi man nga maa wax kañ la lamb ji ubbi mënoo maa da ngay rek ñu naan laan dat sàngam la lamb le premier octobre la lamb ji di la wax yow waaw ñaata yoon lañ fi toog lamb ji tëj ñu naan dat sàngam dina ubbi dat sàngam dina ubbi mosoo na dégg benn promoteur bu taxaw ne maamet lamb ji dina ubbi dañ daan wax rek joxe dat dat boobu bu jàllee ñu faussé tey imaginer lamb lu ne natt tey jii ci lamb covid bu amee lamb la ñëw ne lamb na tëj man li ma yor war koo jox sama njaboot du ma ko jox kenn bu subaa ëllëgee comme li ma gars yi xaare nii rek mm. xam nga comme yoruma nag te tam doon jaam yàlla boo xam ne bu ma yorut dem ma ci kenn di ko laaj ñaan ne ko jox ma dépasse damay xam li may dugg ba bu ma ci duggee ba léegi fu ma neex jaar ndax loolu rek mooy nit yow fexeel fooy jaar mm. doo wut naa noo xaaral ma jaar ci mbimu mbedd wala feneen fu ma neex jaar mm. man daal l'essentiel ne yore aw ma benn temps boo xam ne maa ko tey xëy nekk ci ni naanaa yor na wala yorut ndax woowuma kenn ne ko mm. mais nag loolu booy na sunuy nopp moom ndax mbëri yi ni tëgg sunuy yàlla dogal bu ñu demee tey ba nekk champion tam dinañu bàyyi xel ndax Thiatou Daouda Fall bi ma koy génne tey mu dajeeg Yankaaw hmm. am na pour amateur yoo xamoon nañ Thiatou Daouda ba suñu borom dogalee ma boole ko ci tournoi bi jël kilifa gu mag muy Abdoulaye Djigo boo turé ko ko hmm. mu yëkkati terrain jox leen ni ku daan jël terrain boobu Thiatou Daouda Fall mi dégg dem na kër dem na ba muté ko ci turam hmm. kon loolu boo léegi itam lu mu di fàtte yi daal yi Mm-hmm. kon nañ defaraat toogaay yi xam ne làmb ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi nit nag bu amut bu xamutoon fi muy doore fa jëm xamu ko kon war naa defaraat jikko yi nga xamee ne maam kenn ku ci nekk léeg-léeg suñu borom di jox bu lay jox du la tàggu day ko demal jox ko yi daal ngi léegi te bu ko fanaanoo la mi lay jël si noonu lay def da lay ñëw di la jël si ne la dañ maa yónni ci te ki ma yónni nee na la fi bàyyi nit itam bu ñu koy jox teraanga na bàyyi loolu xel daal teraanga jëla suñu borom jox joxula ko pour nga beew de mm. joxula ko tam ngir nga wala nga doyo dal ki nga xamee ne dafa ñàkk te am na foo tolloon doo ko man noonu laay fonctionner. dëgg la euh, ñu ñëw ci CNG bi actuellement taxawaayu CNG bi. CNG bi nga xamante ni ñoo fi nekk actuel. ak ki nga xamante ni ñoo fi jógee. boo leen doon comparer. nan nga leen gisee. waaw ñi fi nekk ñi ngi ñi ngi dox ay jéego ñoom ndax itam dañuy doog a ñëw te nit ki buy doog a ñëw. Euh, doo xam lim mane wala lim bëgg. da koy bàyyi muy dox di dem ba waaye alin Sarr li mu fi def kenn dootu ko def ci làmb. Hmm. waaw non du am ndax Alioune Sarr dafa dafa maamee que li gën a am solo ci doomu aadama mooy ñett yi yëpp dafa nekkan ci moom. Hmm. nit ki boo amee dignité ñàkkoo dara. Hmm. fees sa place. Hmm. tey jii ñi ngay ñëw di la neex ah, yow ki nga xalaat ne moom moo la war na jox te nga war koo jox ki la war a jox nga yëkkati di ko jox. kooku yaakaar naa du la jaay dara de. loolu nag daa nekkoon ci Alioune Sarr Alioune Sarr dafa feesoon yàlla dénkan na ko mu am teraanga. am dignité ba pare fees place am. li nga xamee ne kenn bu taxaw sànni ku la président bu ko kàddu Alioune Sarr même boo ko daan sànni kàddu daawul nekk kuy tontu wala kuy nangam mais moom xa feesan na place am ndax biñ ko joxee leen ko jox ba pare dañ koo bàyyi muy doxal ndax mi ngi doon doxal doxal boo xam ne tey jii comme neex nag mën ngaa jël ay baat ah. hmm. mais moom xamoon na li mu bëgg te nekkoon na nit koo xam ne dafa nekkoon ku jafe mooy daana la woo di la déglu Alioune daan gis engouement yuuxu yëpp yuuxu mais danaa leen kaay leen waxtaan te njiit noonu lay fonctionné hmm. waaw mais nag li fi nekk nii euh, dafa bari ay détails làmb ji mooy mooy ñi jiite làmb ji léegi daanaka léegi da nga gis promoteur yoo xam ne sax su Bira Sène tey am loo ne Bira bu ko war a dénoncé am na ñoo xam ne mën nañoo xelal ne tëb Bira Sène dem ci ministre bi mooy seen intérêt ñoom te loolu dafay am. mooy. mooy président CNG dem ci dem ci ministre bi. kon waaw moo tax lamb daal li wérte mooy li may wax sama rakk yi sama ginnaaw mooy nanu fonkaat métier man nekkan téye ko ak fukki loxo juróom ndax lamb du dem ci kanam ci ginnaaw la jëm. Hmm. waaw làmb ñaari tànk benn tànk la benn loxo gars yi daane nan loxo bi weer wi ñu génn nii benn loxo ci de fi ñu toll li fi des di ay finition la yoo xam ne dañ koy àggale rek ndax làmb ji boo ko xoolee tey juróom benn ci kaw ñoo xam ne duñ bëriwaat ñeentaat te bawnu te ñii ci kaw ñii ci suuf nii war a dem ci kaw hmm. li yóbbu ca kaw mooy ñun ñu ñun ñi nga xamee ne ñoo nekkan en tête hmm. war a defaraat làmb defaraat ko duñ ko defar làmb boo xoolee chaque jour ñaata nit ngay dégg wax ju ñaaw ku ne ngi wax doo dégg mukk wax loo xam ne maame nga tey jii dañ koy wax ngir boo xam ne maame nga tey boole nit ak nit ñu hmm. tey li tax ànd ak nit euh, ku bu ma àndeek bàyyi jili tey jii bu nu àndee te suñu borom tax ndax àddina ñaar ñooy ànd mhm. il faut loolu suñu borom moo ko bind day boole ku yor dara ak ku yoram xel ñu ànd mhm. nit dina yor teraanga te du amam xel dëgg wala nit yor teraanga te du loxoom du am na foo ne maame nga du nga joti am mhm. xel mooy tax nga joti fa ki amam xel nag su moo la yóbbu ba foofa boole laa kooku pour nga mën a jot ci la nga bëgg a jot ñaar yooyu fi il faut ñu ànd mais léegi àddina soo àndee ko am alal sax ab welo boo ko yoree ñu ne moo ko ko jëndal waaw ngay dem feneen ci yeneen réew ñu ne noo diw moo ko yóbbu waaw te itam moo tax nag àddina ñaar bu ndee ànd hmm. faaw njariñ ñoom ñaar ñëpp dañuy jariñante borom xel day ànd ak borom teranga hmm. ñoom ñaar ñuy jariñante hmm. borom xel mi su manqué dara borom teranga te borom xel day am loo xam ne bu ko manqué rek mooy teranga lay manqué te bu amee teranga day yokkam xelam ndax million tudd million melo woon ni la tudd melo woon ni la kon voilà jii koo fi gis rek tey jii mu beew ba yëkkati ko million tax mu mel noonu waaye yuruma doo ko dégg waaw mais nan defaraat daal toogaay xam ne dañoo bokk lu mënta séddoo ci sa biir wax dafa am lu ma ci jàng li ma ci jàng mooy est-ce que du ñëng final bi ñëpp ne mënul am moom la fas yéene tëgg ci làmb retiré wu dellu ginnaaw xanaa xalaatoo loolu non man maa ngi ci làmb te it man xooxutal ak xuuxal ak yooyu man ragaluma man li ma wax rek man taalibu Sëriñ Tuubaa laa te duma ragal doomi bool boole ci li ma gëm laay wax te itam yaakaar naa ne bu ma war na wax ak yow mii loo xam ne li ma gëm di ko wax Mm-hmm. moom la ma la koy wax nga dégg ko mooy du ma fi nekk di dem noo di dem fële naa du lii lay wax ak wala nangam am na ñoo xam ne nag dañuy wër yi daale fan la nekk ak kan moo koy jox ak kan moo nekk ci ginnaawam. fu muy wittee voilà <laughs> mais yàlla moom dafa yor loo xam ne maame kenn. dëgg la xalaat ne nag maame ka ñi ne suñu man suñu borom rek moo ne sama ginnaaw. Mm-hmm. waaw man maa nekk promoteur boo xam ne seul aw ma kenn ku may jox cent mille francs yow mi barke alxuraanu karim du tëgg làmb laa fii laa koy waxee direct wesaare laa ko waxee amul benn journée bu may tëgg am benn nit koo xam ne maa mi ka mën na maa lebal cent ma ko man may jàppale man lépp ci say moyen bopp barke alxuraanu karim promoteur yi yëpp laa la ku ci nekk maa mi tey man nga amaana boo tàllalee sa am ku labal deux mille wala un million cinq amuma ko boo tëggee ba pare waaw te idaale ñi nga te man man awuma loolu mais nag en tout cas daal jàppal na ñoom ñi ngi tëgg maa ngi tëgg mhm. suñ borom nag mooy di dimbali waaye ñu ngi ñaan mu dool nu dimbali ñun ñëpp nag ñu ne ci làmb waaye tam ndimbalal suñu borom daal du ànd ak ab coono te man suñu borom ndimbal loolu la ma defal moom laa def nag ndeysaan euh, jërëjëf ñi nga xam naa ni euh, vraiment li ñu bëggoon euh, gën a taxawu ci làmb hmm. actuellement ñu ngi gën a gis ni yeneen mbëri yeeg yenn promoteurs yi yenn supporters yi ñu ci nekk mu ngi am ay jiixi jaaxa ba bërki démb gis nga ñaari association yi nga xamante ni am na hmm. muy association nationale de la lutte Gris Bordeaux jiite ko. Hmm. ak benn association bi nga xamante ni mooy jeune reporter. Ah. dégg nga jeune. kàggu loo waa ba kàggu ngir yàlla bàyyi ma ba liggéey ah. ay waay kàggu lii lan la. association beneen association bi de association des jeunes lutteurs. Ah. mobile jiite ko. gis nañ beneen boo xamante ni tamit judduwaat na Sibor moo ko jiite. làmb noonu muy dundee fi mu toll nii nan nga ko gisee. waaw loolu mooy li ma wax rek nañu nañ defaraat toogaay hmm. te bañ ne ji maa moo jiitoo rek daa am lu ngir loolu. te da ci am ñoo xam ne maanaam njiital li mooy damay tibb wala su may dox li may dox man rek maa koy dox. Hmm. te bu ma koy dox du ma ànd ak ñi nga xam ne ñoo ma jiital. dëgg la loolu nag moo yàq léegi moo tax kenn ku nekk day bëgg jiitu te boole ci association yi boo xoolee làmb yaatuwut. te fi nii boo xoolee vingt vingt association yi yoo xam ne boo demee ci kuréel gu mën a doon am na fa. Hmm. kii jiite diw diw jiitu diw jiituwut te njiital li lépp kenn ku ci nekk maam la nga fa bëgg mooy. di fa xaal loo xam ne boo léegi maam nga xamee ne buñ nee dara nga ne noo ma retiré wu naa. Mhm. waaw ndax man mii nekkoon naa président seen amateur may nuyuwaale président Gora Ndoye moo ma ko yor. président bu baax di woon ko ngir dama ci dama làmm man dama ci bokk. Mhm. man 1986 laa jëkk seetaan làmm. 96 waaw diggante Salloo Boy Kayre seen premier combat bi ñu bëri stade Iba Mar Diop bi am gason bi. Mhm. foofu laa doon tëbe man stade di dugg Iba di seetaan man virusu làmm moo ma solo. may xeex di xeex di xeex di xeex ba gis ne làmb tey intérêt làmb mooy amateur dafa war a gis boppam ci loolu. Mm-hmm. ma créé jeune amateur. yor ko yor ko yor ko ba nga xamee ne tey dama bo dama nekk promoteur nekk amateur mënul ne. Mm-hmm. tey bu fekkee ne tey amateur tey exemple Fallou Ndiaye su tëggee lamb. Mm-hmm. ma dem di xeexal Fallou Ndiaye te xam ne lamb dafa am tëgg perte am lamb tëgg gagné. kon day mel ne am lu may nuru. moo tax ma joxe raaya yooya continuer ci li ma nekk. li ma nekk nag maa ngi ci di bay bokk na ci li nga xam ne moo gën a sooxal lamb Euh, kon jërëjëf Idaly Gningue parce que waxtaan bi neex na loolu macha allah am na solo waaye mbokk yi maa ngi leen di xamal ni euh, ku baax a ngi nii toog muy Gningue production man d'habitude euh, moom xam na ko ci man mosuma ko woo jaar ci turam promoteur bu mag bi rek laa ko yox parce que loolu laay gis ci moom te waykat bi daf ne ku xeebul sa noos kenn dàqu noos te it saa su ne rek mu ngi jéem a puus làmb pour mu jëm ci kanam jëm làmb jëm ci kanam nag mooy njariñu làmb nañ leen taxawaat seetlu xool làmb ñaari at ci ginnaaw fan la nekkoon ñaari at ci kanam fan la làmb jëm ndax oto bu ñu ciy def rétroviseur du ngay gesu waaye xool sa ginnaaw tamit da cee baax ñu ngi maa ngi lay jaajëfal bu baax kontaan naa ci ci ci teew bi nga déplacé wu ñëw ba fii vraiment mënuma laa fay maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw yow yow danoo bokk loo xam ne mën na ko séddoo muy Ahmadou ma Touba lañ bokk te mën na ko séddoo te yow liy fees ci yow lépp say bët. mooy sëñ Tuubaa mooy fees say bët moo tax boo ma wooyee damay sawar pour ñëw wuy si la di wax ne maa ngi nuyu sama mbokki bawol bawol yëpp mm-hmm. di nuyu sama waajur wu góor ak sama waajur wu jigéen suñu borom bàyyi leen fi ba naal yi ñu àggale ko mm-hmm. ci barke yonent bi mm-hmm. xam nga di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ci làmb rek di wax ne doomu aadama nag matut bu ñu jàppee ne maame nga tey yi daal mi nga xamee ne amaana nit nag dañ ne nit melut ni mu waxee ni mu jëfe la mel waaye nañ jàppe ne bépp jëfin boo xam ne maam nga jëf nañ ko rek ci lu dëggu mm-hmm. noonu lañ mel ñun mm-hmm. mais doxunu ci loo xam ne dañ ciy dox ngir di raayal bàyyi ji mi ginnaawam boo léegi buñ demee fee di wane ne dañoo dëggu mm-hmm. li ñuy wax nii dañ koy waxti suñu borom tax Mm-hmm. maa ne loolu moo tax saa bu ñuy wax nag dinañ am ay baat yuñ ciy dégg mm-hmm. mais ñun jaami suñu borom lañ yoo xam ne li ñu gëm ak bëgg ko moom lañ wax ndax kenn yoru suñu kër mm-hmm. may nuyu Baye Jili Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di ko ñaanal Cheikh Ndigal Sène di ko ñaanal Serigne Abdou Karim Mbacke di wax waa làmb yëpp daal yàlla na suñu borom may kàttan ak man-man ban déggoo te itam bépp promoteur ak bépp amateur Mm-hmm. ak supporters yeeg journalistes yëpp. Mm-hmm. nu booloo nekk benn mooy tax làmb fi ñu ko bëgg a yóbbu ñoom ñu yóbbu ko fa. Mm-hmm. bu dul loolu làmb day gën di dellu ginnaaw quoi. nañu defaraat toogaay rek. jaajëf. jërëjëf mbokk yi may jaajëfal bu baax képp koo xamante ni euh, mu ngi seetaan wasaare làmb commencé ko ci maam Abdou mi nga xamante ni euh, ma Abdou Aziz Dabaax baax lañu ko duppee borom France borom Sénégal pavage maa ngi koy nuyu bu baax di ko siyaar di nuyu ki nga xamante ni mooy sama xarit ba Ibra Ibra Gueye mu nen na Fatoumata Tall moom it sama waay la kaab gu xaruma matt de damay dama leen di bëggee rek parce que sama xel lekk ci ñoom ma leen di bëggee Ibra Gueye maa ngi koy jëfal bu baax Gueye Ndior ak Ndak euh, di souhaiter un bon anniversaire suñu yaay jooju nen na Fatoumata Tall mu gudd fan mu wér mu am jàmm ndax yaakaar naa ni bu ñu naan jigéen bu mën góor soxna nen na Fatoumata Tall mooy jigéen ju mën góor ñu leen di jaajëfal bu baax a baax